daje bi ñu am tey lu ko waral mooy dafa am benn euh, waay bu tudd Ousmane Sonko ak ay saaga yara di ko ñàkk tegin ñàkkin tegin boo xam ni mënu ma ko wax mënu ma ko wax fenn ah loo xam ni lu metti ci lu Sonko doon wax maanaam euh, àllarba bi bi passé te mu doon wax ni audience boobule nga xam ni man maa ko accordé woon man maa ko mayoon mu ñaan ma ko ma may ko ko audience boobule am na moom ci ay génnam nee na naa wax kañ la naa wax fan la naa wax ban date la ba ma ko koy may booba man maa ngi nekk délégation générale

tout simplement de mënul comprendre xam nga c'est normal un sénégalais soxla gis président mu fu jaar ku ko yombalal loolu normal la lu normal lu koy mooy nit def ko ba pare di ko weddi loolu moo ma jaaxal waaye bu xam nga dañuy wax ni bu fekkee da nga ni damay xeex système waaye bëccëg bi nga ni ndar kàmm li ngi maa ngi koy xeex waaye bu guddee ngay jaar ci diggante bunt yi di ko seeti boo ci amee problème kooku du ci man ci yow la waaye damay wax leneen pour jeexal waxtaan boobule moom ci boppam am na benn élément sonor moom moo ko def am na te fan yii passé loo ko def te ci biir élément sonore boobule moom ci boppam nangu na ni audience bi am na wax na kañ la ak wax na ku ko fekke loolu nag comme yoon may ma man ma génne ko dama koy ñaan moom ci boppam bu mu autorisé ma bu ko bu fekkee bëgg na ko man ma génn ko bu nee prip man ma génn ko bu neexee yàlla